wa radiyallahu an asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la xawla wala quwwata illa billahi al ali al azim subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka anta al alim al hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya himmata shaykhi uhduri lana bi hadha al mahdari wal ta'tafi bi nazratin ta'ti lana bi zafarin mbokk yi ñuy siibur fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziyaara di leen ndokkeel di ndokkeel suñu bopp di ñaan yàlla defal ñu jàmm eh, di ñaan yàlla bi nga xam ne moo bind jaamam yi eh, ne binduma nit ak jinne lu dul ñu jàmm kon jaamu googu nga xam ne weer wi weer wi ñu nekk muy benn ci ponk lislaam yi muy chehru ramadan alladi unzila fi alquran bi nga xam ne ci lañ weeru koor bi nga xamante ne ci lañ wàccee alquran moo tax yàlla wax ci alquran ne wax yunti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm kutiba farataalis na aleykum ci yéen assiyaamu koor kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun comme ni ma ko farataale ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiitu woon weeru koor nag daf di weer boo xamante ne weeru yërmande la weeru njëggal la weeru jot jaam safara la parce que yonent bi sallallahu alayhi wax na ne awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa axiru itqun min an naar yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne mu ne weeru koor mu ne fukki fan yu njëkk yi mu ne loolu yërmande la fukki fan yu ñaareel mu ne loolu njëggal la mu ne fukki fan yu mujj yi mooy jot jaam bi ci safara kon bu fekkente ne loolu ñun jullit ñi war nañ see mun a jàngatee lu bëri war nañ di yërmante suñu biir war nañ di jéggalante war nañ ci aussi di taxawu ñi si seen soxla yi nga xamante ne mooy soxla yi yi am pour di koy fajee seen i aajo yëpp war nañ ci di mën di taxaw ci loolu yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ni nisfu sabri mu ne koor mooy genn wàllu muñ parce que bu fekkente ne mu ne muñ cent la mu ne cinquante yi moom mooy koor yeneen cinquante yi mooy nattu yeeg yeneen yeeg yooyu yëpp mu ne mooy yeneen cinquante yi te shahru ramadan mu ne shahru sabri la mu ne weeru muñ la weeru muñ la kon te ñu yàlla wax ci alxuraan inna allaha ma sabirin yàlla mi ngi ànd ak muñkat yi kon bu fekkente ne nag ñu ngi ci weeru koor rek nga xam ne kon fekkente ne war nañoo muñ gi ñuy muñ rek loolu ñu xam ne kon yàlla mi ngi ànd ak ñun yàlla wax ne kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaquun ragal yàlla googu nga xam ne mu ci doomu aadama bi parce que mu ne dafay ndax leen ngeen ragal yàlla nit ki bu ooree dafay ragal dana ragal yàlla waaye nit ki bu oorut lu ne man sañ na ko def da ngay gis koo xamante ne dafa oor suy wax suy wax ci moom dara sama ne eh, man bàyyi man waaye mu wax lu damaa woor te bu oorut di koy def te damay wax ne li yàlla tere ci buñ oorut ci la tere buñ wooree kon bu fekkente ne siyaam dafa ñëw weeru koor oor koor dafa nekk loo xam ne dafay tax nit ki ragal yàlla kon loolu luñ war a fonk la te tim weeru koor yemut ci loolu nekk na loo xam ne dafay tax nit ki wér mu ne suumu oor leen tasixu ngeen wér mu ne bu ngeen ooree da ngeen wér kon ki nga xamante ne mu ngi feebar am benn feebar ci yaramam dem faju lu ne na tam woor parce que yonent sa sallallahu alayhi wasallam wax na sax bu munta muñ maanaam bu munta muñ na woor kon woor li muy saafara bëri na kon koor nekk na loo xamante ne lu am njëriñ la moo tax téere bi gën ci téere yi yàlla mu ngi ko wàccee ci guddi goo xamante mooy laylatul qadr mu ne unzila fii alquran mu ne ci euh, maanaam weeru koor ci lañ wàccee alquran kon su fekkente ne ci lañ wàccee alquran guddi goo xamante ne ñu ne moo gën junney guddi nekk ci kon nga xamante ne kon weeru koor weer la boo xamante ne weeru njëggalante la weeru yërmande la weeru jot jàmm safara la waaye weeru muñ la waaye weeru ragal yàlla waaye weeru dimbalante la yàlla wax ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan mu ne na ngeen dimbalante ci kaw ci kaw ragal yàlla kon nawaafil yi nga xamante yaa ngi koy def am na koo xamante ne sax ne jàpp na ne mu ne bu jàpp na ne bu ooree te naafila wul rek jàpp na ne kon waru woor te naafila maanaam yéene lay nekk nit ki bu weeru koor bi teroo ñu ne boobu weer bés bu njëkk ba mën naa yéene ne fas yéene naa woor weer weer wi yëpp fas yéene naa woor weer bi yëpp su ko defee bu boobaa nag mu ne nawaafil muy def nag su ko defut du ko koram waaye dafay yokk yoolam ci koor kon nit ki loo xamante ne boo ko defee dafa yokk sa yool ci koor kon waruñ ko bàyyi te nit ñi léeg-léeg gis koo xamante ne day def dara mu ne ah loolu sunna rek la garaawut déedéet sunna muy loo xamante ne boo ko defee am tiyaaba waaye boo ko bàyyee doo ci am bàkkaar boo ko teyee bàyyi ko nag mën nga ci am day yool day wàññi sa yool kon nag su fekkente ne da nga koo tey ba ko mu ne ko dafay wàññi soyool soo ko defee mu yokk soyool kon nit ki li yokk ay darajaam war na ko fexe di koy def parce que farata nag mooy lépp mooy obligation farata moom si obligation moom looy xam lu mooy li xam la ko war a def moo tax bi yàlla waxee ne kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun kon nga xam ne ñun woor war nañu kenn ku si nekk woor war na ko waaye nag ca ba muy feeñ yonent bi na ñu solution ida raaytum alxilaala fa suumu wa ida raaytum fafturu fa in gumma aleykum fa akmilu salatina idda salatina yowman yontu salaasa dafa wax ne bu fekkente ne chaban ñu ngi ci chaban ñu nekk ci le vingt-neuf mu ne nañu woor ñu gis weer mu ne nañu woor mu ne suñ ko gisut jarul yenn yenn yenn coow yu bëri yeeg jaru ko mu ne mattale leen fukk fan suñ ko wooree ñu dem ba ci ramadan ñu ba ci le vingt-neuf ñu gis ko mu ne bu boobaa ñun nañu wari waaye bu fekkee gisuñ ko mu ne nañ mottali fa akmilo salaasina yawman waaye nag problème bi am yëpp mooy ñii nangul ñii ñi ñàkk ñii ñi wala ñii buñ waxee ñii diñu wax te yonent bi sallallahu alayhi wasallam te léegoo-léeg da gis ñoo xam ne li yonent bi jàngaloon jàngaloon ñu war nañ ci doroy wax parce que nee nañ benn sàmm ñëw na euh, ci àll fekk ko fa mu ne ko yonent mu ne ko yaay ma xam mu ne ko waa mu ne ko weer bi feeñ na mu ne ko ndax gëm nga may yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi man la yàlla yónni mu ne ko waaw mu ne kon wax ñu ne leen wari leen kon dog leen seen koor kon lii mooy li nga xamante ne sunna si la yonent bi jàngale kon ñun noonu lañ war a topp nañ nangoo toppante nangulante waaye nag li ma waxoon rek laay waxaat ñi nga xamante ne nag ñu topp nañ xool suñu réew mi parce que réew mu ne am nañ jiit ki nga moo jiite ci diine ji ñu jiite ci diine yi ak ki jiite ci réew aada bi ki jiite aada kenn la ki jiite ñi jiite diine ji bëri na su ko defee diine ji nag dafa bëri ay pàcc yoo xam ne ñu si waaye te loolu yëpp yërmande la ak ñeel ñu parce que wax nañ ne in ixtilaaful ummati rahmatul wuti googu yërmande la waaye nag yàlla bind ñii di bokk fii ñii nekk fa fële ñii nekk fii inna jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu mu ne loolu yëpp dafa ko war pour leen ñu xamante kon nag loolu buñ xamante ñun ñëpp lajee war nañoo xool naka la ñuy def ba lii ci wàllum weer yi ñun ñëpp ñu ànd ci def benn ànd si def li nga xamante ne noonu la ko borom bi euh, santaane na ko yuntu sallallahu alayhi wasallam gërëmee kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp di fàttali nit ñi nañu fexe di bëri lu ñuy dundal ci weeru koor di jox nit ñi ay dog waaye nag waxuñ ne nga mën a woor wooroo naan damay dundal damay jox koo xamante damay jox ñi ñi boobaa yow ñee yow yoolu joxe lekk nga waaye amoo yoolu koor ñoom dañu am yoolu koor am yoolu nangu gi nga xamante ne dañ leen jox dañ am ñaari yool yow nga am benn yool su fekkente ne nag da dem ba munoo woor li ngay yëkkati di layele mu ne bu boobaa di am yoolu koor am yoolu dundale waaye nag waaye nag mën a woor te wooroo ko waxuñ loolu kon bu fekkente ne kii joxe ndogu ne jiital woor su ko mënee waaye su demee kii dem ba nga xam ne feebar mënut a woor wala dem na ba nga xam ne xelam àgg na fa mënatul woor kooku lañ may muy dem di dundale ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal ñu jàmm yàlla sàmm ñu barkeel ñu nangu suñuy koor nangu suñuy nawaafil nangu suñuy saraxe nangu suñuy mboolem yiw yu rafet yoo xam ne def nañ ko ci weer wi ñu ngi ziar ñu ndokkeel ñëpp seen bokk imam Makhtar Sylla Al I'lam di président association Al I'lam pour la promotion de l'éducation la culture communication islamique waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu